tey am mbégte lool nag ci jéego yi ngeen di xam ne yéen a ngi koy dox ngir nun danoo amut lu dul borom saam te képp koo xam ne nag tax na laa jóg ngay xeeñtu si ay jéegoom loolu moom boo ko yëgee boo ko yëgu defal nga nu loo xam ne kawe na suñ jot ndax suñ yëngu yëpp ak suñ dal gépp ci borom saam la nun borom saam rek la am kon képp ku ñu ci jàppale jàpp jàpp nañ la buñ ne jàpp nañ la jàpp nañ la buñ ne la jàpp nañ la buñ ne lu jàpp nañ la jàpp nañ la Euh, bis bi nag li ko waral dara waralu ko lu weesu sant ndax bu la yàlla boolee koo xam ne léppam sëñ Touba la ndax moom buñ ne la kan mooy sëñ Saam nga ne moo sëñ Touba ñoo bokk ndey ak baay foofu doyam naa yam mam mam moorum soxna jaara foofu doy naa yam leneen loo ca dolli rek euh, guddali wax la waaye foofu doy naa yam sëkk ndax soxna jaara moom ku ne xam na ne jurut poñet mënta am mënta nekk lim liggéey lim liggéeyal yàlla kuñ nekk yii doomi soxna jaara loolu rek doy na doy na manoore doy na ngañaay tayit nag balañ koo xam yomal xiyaam dafa teew buñ ca àggee ca la ñuy xam doomi soxna jaare ji mooy kan taalibib bi Touba bi it mooy kan ndax moom yaar yëpp la def mooy kilifa ak sëñ Touba na ci ci ak mageel waaye nag dafa foogoon lépp am jébbal sañ Touba ba leetar bi sëñ Touba njëkk a bind ci géej gi moom la ko adressé moom dénk ko lépp nekkoo njaboot gépp nañ nekk ci saroñ te nga yërëm leen tañ màggal la te Thierno Ibra Faty fu mu mën a yore njaboot gi ci Touba fu mu fi jàppandee ñu def ko loola nag ba mu koy dénkaane maam Thierno njabootu mm, lu mel ni soxna ya ak doom ya loolu la wax waaye ba mu limee tur yi ña nga xam ne la tàmbalee ca maam Thierno tàmbalee ca ñi bokkal baay sëñ Mor Anta Sali ba ca sëñ ma Massamba ñooñu la dénk borom saam ak njaboot gépp ñooñu ñëpp fii lañ doon jël si ndigal ndax booba bi muy dénkaane bi muy dénk maam Thierno njaboot gi fekk nañ ñii moom kenn ku ci nekk ay njaboot nga yor ber nga sa daara ber sa kër xam nga kooku kenn dootu ko dénkaane ndax gannaaw yor nga ber nga sa daara wàcce nañ la liggéeyal nga sëñ Touba ba sëñ Touba wàcce la. dara la nga dem ci sab dëkk nekk fa waaye nag ci sëñ Mor Diarra mii lañ doon jël seen ndigal waaw ñoom ñëpp fii lañ doon jël seen ndigal ndigal li nga xam ne moom lañ doon am doon ko jëflante lépp fii lañ ko doon jëlee ba ci Cheikh Ibrahima Fall sëñ Touba yemal na ko fi ñetti at yoo xam ne nekk na ko fii tërbiyewu fi ñetti at sëñ ma numbe fukki at waaw sëñ ma numbe xam fukki at sëñ tubaa ko fi yabal nee ko boo demee sëb ci ak borom saam mu murite ko sëñ Touba sëñ moor Jaara bindaat ab leetar boole ko sëñ Touba ca la ko wàcce kon day mel ne ndab lu sëñ Touba raxas ba mu set day jox borom saam mu duy ci day mel ni fii moom kum kum kum kum kum kum kum kum ne eh, eh, noonee mu ko doon defee ci alxuraan ji nga xam ne kenn ku ne bala sa alxuraan a wér dala koo signal day mel ni sëñ Touba li mu doon def. balaa mën a sotti dalaa yebal ci borom saam lépp doog a doog ci yoon mboolem kilifa yëpp nag mboolem ñu jamono teew sëñ Touba ñëpp ko tudde doom kenn ku ci nekk tudde nga ko doom sëñ Ibrahima Sarr Njaañ sëñ Mor Diarra Sarr dégg sëñ Mad Lamine Gaye moom it dégg nga ko moom ab taaw moom la ko tudde sëñ Modou Moussa sëñ Bakki Madina waaw nga topp ko nag topp ko topp ba ñu baax ñëpp kenn ku ci nekk am nga loo xemeem ci moom ba tax nga dabu si ci moom loolu ba ci sëñ saam Mbaye mm-hmm. <laughs> waaw mboolem ñi ñu ko tuddee yi nag yàlla defal na ko ci tawféex ñëpp ràññe ko amul kenn ku ci ràññe ko kenn ku ci ne fa nga nekk ràññe nga ba ci sëñ Mbacke Fall Cheikh Ibra Fall fi ne dañoo jàpp kenn rek la ko tudde waaye ñaar la ko tudde kenn ki maami sëñ Jili Lappe mii nga xam ne mooy porte-parole bi moo ko jur dañ koo joxoon Cheikh Ibrahima Fall moo am ca doom Cheikh Ibrahima kooku la ko jëkk a tudde doo koo tuddee sëñ Mbacke Fall <laughs> kon Cheikh Ibrahima moom amoon na lu lu xamoon ci borom Sall waaw loolu nag ñu bari dañ ko tudda xaale waaye noonu la deme <laughs> waaw léegi léegi euh, bërëb yi ngeen nu fekkit fi la doon defee téeméeri rakkaay waaw naa fi la gi néeg mooy néeg bi fi la doon defee téeméeri rakkaay moog sëñ Touba bokk nañ fanaan ci néeg bi sëñ Touba di di bind sëñ Mor Diarra ay julli ñu fanaan fi ba asamaan set loolu it Sëñ Blaat a ko nettali Sëñ Blaat moo ko nettali moo wax ne ñoom ñaar de bokk nañ fa fanaan te sëñ Mor de lam ya namm namm sëñ bi mooy bu sëñ bi jógee euh, ci géej gi ba ñëw Daaru Salaam la rocc ko ndànk ñëw fii ci borom saam ñu bokk fanaan fi ñoom ñaar biñ fanaanee ba guddi teewul sëñ Mor Jaara nekk ca lam sëñ biir nekk ca lam daane ak lim koy namm namm dafa fanaanee julli julli téeméeri rakkaam noppi <laughs> doog a waxaat ak moom leneen lu ñuy wax kon lu baax lépp day mel ni suñ boroom ah da koo booleeg sëñ sëñ Mor Jaara ak sëñ Touba moom ñoom ñoo ko ànd dox ko nag mu taxawu ko ci lu bari sëñ Touba féete ko fépp waaw sëñ Touba féete ko fépp moom mu féete sëñ Touba fi mu mënee fépp mboolem waa kër sëñ Mor Anta Sali ñëpp moo leen jàngal moo leen jàngal moo leen yar moo leen tarbiya moo leen tarxiya waaw xëy na nag ñu bari am nañ ci kumpa waaye nag day def ne moom bu njëkkoon a séddu kenn ku ne xeeb ab cëram loolu moo waral mu mujje bàyyi ba ñëpp kenn ku ci nekk séddu ndax la ko sëñ Touba waxoon rek li fi li fi indi nit ñi. lu nekkut ci man rek mi ngi ci yow walla ko wax kon nan gën a góorgóorlu rek te xam ne ba noppi du joxe ndigal bi mu wàccee ab liggéey de ku ko commercial na commercial sëñ Moudou Moussa mboolem doomi sëñ Touba yi a ci def ay ay bayit ñëpp amut kenn waaw te moo jàngal na sëñ Fallou jàngal sëñ Moudou Moussa <laughs> waaw daara joo xam ne nag doomi sëñ Touba yi gën a féete ak mag ci lañ jaar ah, sëñ Cheikh Thioro jaar ca sëñ ma moom ñu bare bare moom moom boo ko doon lim tey doo xam doo xam fooy tàmbalee doo xam fooy yem sëñ Bakke bu sa jaar ci sëñ Touba mii ñuy wax itam jaar ci xam-xam Baroud moo ko ko jàngal <laughs> waaw bu dikkee ne ko lu mu ko jàngal bu dikkee way ko def ko ay way indi. mu ne ko yow kat mu mu mu ne ko ah lii du doy na mu ne ko déet dangaa mën a jàngale. <laughs> muy muy muy ay yëf yoo xam ne euh, lu biiru la seen diggante daal fi ñu àndee sori na waaw fi ñu àndee sori na. sëñ Tuubaa nag dafa wanoon mag ñi aw yoon ndax moom dafa fonkoon borom saam xéroon ci moom lool bam ëpp mag ñépp xam ko moo moo taxoon ñoom ñu fonk. ba ñëpp daanaka seen njaboot tudde nañ ko boroom saam comme ni ko sëñ bi wax léegi sëñ Ibrahima Fall man sama maa ngi doon xam ne ñaar la ko tudde maam Cheikh Anta moom sëriñ bi ñoom da leen a digloon ñu koy siyaare ji ba bi mu génnee àdduna dañ koo saxal ñaam bu ñu daa dugg di ko siyaar sax seen i dañ koy summi waaw ñu ngi rek ki nga xam ne moo ko doon waajal li ko sëñ bi wooyee dana ko boo demee foo ko dawut àgg bu ko fa àgg kon muy muy muy muy wor ma nga xam ne borom saam dañuy wax ne bi mu génnee àdduna sëriñ bi fab woon na ngir ñëw taxawu ko nee xaw naa sori sax mujj mu wàññi ko xam ne dafa nekk ci loxo ci la woolu sëñ bu Buso yabal ko ne ko demal taxawu ko te boo demee ba àgg lii may bëgg a wax nee leen man mii maa la ko wax muy bañ dencee yent bi sallallaahu alayhi ba léegi dencaatuñ ku ko gën loolu wax yi li tax ñu koy li dafa ñu bari daanaka dañuy waxtaane seen maam day mel ne ndamu lañ ciy jublu waaye xëy na sa xol dana ci sedd ndax yàlla tànn gim la tànn boole laa ku mel ni ndax ku baax koo gis faw ñu tànnal ko ñu baax li sëñ Abi wax léegi ne boroom saam moom booy wax ay jaloorem lenn rek doy na ne mooy magi sëñ Touba ñoo bokk nag ndey ak baay te sëñ Touba ak ni mbiram toll yàlla bu koy feeñal faw fu baax rek la koy tànne te boroom am lépp lu ñu xool ci lu baax am na ko sëñ Tuubaa nag day xaar baax moo tax mu daa wax ne coowaree suñ borom ci ahmadu mi laa ko gëme laa ko gën a xame waaye nag du ma bi yaafus koo xam ne nii la nga war a xam-xam nga ko la nga war a jàng-jàng nga ko na nga war a mel-mel nga ko waggar sa borom ba amul génn guddi gooma sa jëlal téeméer ak kaamil bi loolu fa la cër mën a yem waaw boole ko kaamil ba pare nangul sëriñ bi ndax ñoom ñaar réeroo wuñu woon ci dara comme nii ma ko waxee ci néeg bi euh, sëñ Cheikh Lappé nettali na ma ko nee na sëñ Abdou Latif moom Mamour Diarra moo ko nettali sëñ Abdou Latif sëñ Bachir mi fekkoon jataay moo ko nettali nee na bi sëriñ bi jógee ci tukki bi ñëw ci Daaru Salaam di gane maam Cheikh ci guddi gi dafa wolu sëñ moor bu sa xuréje moom Mamour jaar ma sañ sëñ Baara xuréje fekk ab watiir la yoroon mu woolu sëñ Bachir boobu mi ngi ndaam di jàng mook sëriñ bi ak sëñ Mor Xoroji ñu ànd ñëw seet si borom saam fii ci néeg bi nee bi ñu ñëwee ñu ngi waxtaan maam Mor mi ngi ci der bi waaye téeméer ràkk yi mu daan naafila julli guddi gu jot moom taxul mu bàyyi ko ak li mu namm na mu sëriñ bi mu jóg di julli sëriñ bi di bind. nga xam ne ñoom ñaar dañoo yoroon waaru biir ndax boo xoolee ci sa xel rek lim lay may. sëriñ bi ni mu xëre woon ci maam Mor Jaara bu ñëwoon tafu ko mënu koo jox lu dul lépp te bëgg na ñëpp jariñu te moo ko gënoon a jege ñëpp gën a jege gi moom leer na yow koo xam ne nii jàngal na la dax day bëri ñu bari fi ne bu ñu neet li dañ naan sëriñ bi daana ñëw ci ma jaxate mu koy toppal xam boo fekkoon na mu jàng ba pare waaye ka ko jàngal nag dañ koy fàtte wax mi maam moo jaar loolu nag liñ ci mën a gisaat mooy xësiida yi ñuy yéem nga xam ne mooy kiimaan ko sëriñ Tuubaa nga xam moo ko bind ne karaamati xattu yeddi la tax mu man koo bind xam-xam ba koy may mu man koo bind ma Mor Jaara ko jàngal kon loolu waar bi la ñoom nag seen mbir li tax muy demee nii ñoom dañoo bëggutoon daray fes yàlla rek lañ doon dàkk moo tax dañ naan lu baax mën naa feeñ waaye lu gën day làqu waaye nag lu gën bu làqoo ab diir ba war a fes faaw mu fes day mel ne mbiram laa tool ci lool képp koo xam ne yaa ngi dugg ci lu koy fesal nag yaa ngi def lu baax te yaa ngi liggéeyal sëriñ bi moo tax seen jéego yi rafet na lool euh, Mamour Diarra lii ñu fi wax lépp yàlla na nekk bind ci képp ku bokk ci moom ndax day mel ne lépp lu ñu war a jariñoo ci suñu dund àdduna ak àllaaxira mi ngi ci moom ku yàlla baaxee nag ba nga soqi ko ci moom am nga benn responsabilité asamaan ñi nga xam ne ay jàmbur lañ xam ci moom dara sax war nañoo mën a jariñu ci ñoom loo xam ne ab làmp lay doon di leen gindi rawatina koo xam ne suñ borom moo la tànn génn la ci borom saam ndax bu dee buñ koy xeeñcu ñëw nañ ci néeg bii ñu ne néeg bii fa la daa jullee téeméer raak te fi ni ni jamono ku ko doon essayé day mel na lu xaw a jomb te ñoom moo ne jombutoon de seen yitte moo réyoon rek te yàqu leen seen jul seen seen yitte àdduna dara yàqutoon nga xam ne fi ne mag ñi bu ñu ñëwee gàtt bi mu saxaloon mag ñëpp fi la ñuy daje bu ñu xéwloo pare mu jox leen i dog ñu nekkoon ba fajar nga xam ne guddi gi mu fi mujj naafile na kaamil ba pare dem di waajal njàpp foofu la ko suñ borom moome kër suñu soi bi toogi foofu la foofu la wàcceb liggéey hmm. ñu may nettali leen sax ginnaaw bi dem dem di waaj hmm. sëñ Mouhamadou Lamine na Dagana bis ñëw na fi ne daa bëgg a siyaare sëñ Moussa bi too waaj pour yóbbu ko mu jàpp ne barab yi la bëgg a wax mu ne ko déedéet waxuma barab yi de fi mu wàcceeb liggéey laay wax mu dugal ko foofu dégg naa yàgg na fa lool ab diir ba digg bëccëgi mu génn mel ne ab xaal da koo jàpp mu ne ko boroom saam de lim daa faje aajo yi demul fenn ci nii bi la ko bàyyi waaw kon nga xam ne day bëri ay barab yoo xam ne nii ñoom seen mbir suñ borom da koo barkel boo ñëwee Mbàkke am nga fi barab yu bari fa nga xam ne fa lañ ko denc foo xam ne ma ñëpp d'accord nañ ci ne barabu nangu ñaan la sëñ Abdou Khadir ñeneen ñu bëri daan nañ ko mag ñëpp dañ fa daa dem nga am barab boobu nga amaat beneen barab fi mu daa naafila kaamil téeméer ak fa mu wàcc bi liggéey ndax nit ku baax la mujj ci mbiram day mel ne moo gën a barkeel nga dem saam tamit naka noonu noonu la ko fa daa defe ak yeneen bërëb mesereeg yooyu yëpp kon luñ mën a xeeñju seeni jeexit am na fi kon nag la am solo mooy nga sant yàlla ci boole gi mu la ci boole waaye nga fexe nag ba nga yeyoo boole gi mu la ci boole